Euh, bonjour chers téléspectateurs de la 7TV et bienvenue dans votre émission góorgóorlu euh, góorgóorlu comme ni ñu koy defee saa su ne tey le mercredi ñu daal di ñëwaat euh, ci koñu ndaanaan daal di ñëwaat ci dëkku ndaanaan daal di seet waat ndaanaan bi nga xam ne góorgóorlukat la parcelle nag boo ko déggee saxel day dem ci Modou Lo Modou Xarañ Lo actuellement mu nekk champion wu arène bi donc nag ñu daal di seet si un jeune bi nga xam ne liggéeykat la jàmbaar la boo leen déggee parcelle da ngay di faral di dégg ñu naan la 1 ba 26 xam ngeen ne parcelle dafa yaatu moytu lool tey nag ñoo ngi unité 1 daal di seet si un jeune homme euh, du nom de Jalonné Jalonné nag moom nekk jàmbaar euh, moom moo ci wàllum euh, comédie moom moo ci wàllum jàmb màdd jàmb buy mais aussi jamb Dakar lu nekk nag étape la koy defee tey moom laa seet si donc ma ànd complicité ki nga xam ne mooy Pape Mendy tam Pape Mendy sama star bi tey moom laa àndal moom may filmer lu rafet rek moom moo koy génnee ma daal di àndal moom doxantu wër Jalonné parce que Jalonné fii star nag maa ngi seen jalone mu def rouge noir nee naa ko xam naa sûrement dafa nekk di bëggante ndax Saint-Valentin moom chaque jour da koy dund teel a yeewu guddee tëdd bañ da ko ko yab moo tax foo ko gis moo ngi daal di daan dooleem di liggéey waa jalone ci loo nekk ci loo nekk namm naa la ziar naa bu wér. tey fi nga génn. waaw fii laa génn mu nooy rek. Ah. xam nga dafa tàng été bi nii. xew nii nga def rouge noir. waaw mais xam nga rek di dundu mbëggeel. yaa ngi koy buy bi rek ngéwal yëngu noonu la demee. <laughs> nga ne ma. barke Serigne Bamba noonu la demee de mooy loolu. bëgganteeg buy bi ngéwal yëngu. ngéwal yëngu bëgganteeg buy bi di jàmb lu neex di jox xale yi buy ñuy màcc buy ba buy bi di gën a buy xanaa maa mën a buy <laughs> na ñëpp màcc <laughs> mi ngi noonu tey kii laay invité invité naa ku neex mais invité naa xale bu am jom xale buy daan dooleem euh, ñeen gis ko nii mu daal di yore ay sachet euh, donc dafa daal di demoon fa nga xam ne mooy marché nduggi mais aussi dinaa leen woon étape par étape nañ koy liggéeyee mais waxtaan bi dina gën a yaatu euh, donc Jaloñe xam naa dañuy ànd ñu daal di dem ci kër ga waxtaan. ñëw ci travail bi. waaw loolu du problème da ngeen may topp ñu dugg kër ga. waaw ma defar ba mu baax jox xale yi buy ñu maccate rek ngéwal yëngu xam nga dafa tàng. <laughs> dafa tàng noonu la demee. kii rek laay topp Pape Mendy bu baaxee rek nga daal di ñu accompagner ba biir këram. voilà chers téléspectateurs de la 7TV comme ni ma ko waxee tantôt nee naa leen nag tey maa ngi fii ngeen xam ne euh, muy parcelle unité 1 donc 1 ba 26 tey nag 1 laa daal di ñëw daal di set si un jeune homme très courageux ba pare nekk liggéeykat boo leen déggee góor góorgóorlu dëgg moom moo tax ñuy naan góor góorlu euh, non seulement ci góorgóorlu bi il est tellement comique neex ba tudd euh, jalonné <laughs> dañuy jalonné donc moo ngi nii ma daal di toogal dama koy bàyyi mu nuyoo présenté wu gis ngeen ko naam sax bi ñuy ibbi suñu dajee bu daal di jugee marché donc loolu yëpp dinañ si ñëw jalonné dañ lay daal di bàyyi nga nuyoo daal di nuyu téléspectateur yi. waaw maa ngi bëggee ñëpp di jaar ñëpp waaw di wax di wax waa 7TV jaaraama ci émission bi ngeen ñëw tey seet ma waaw muy buy jalonné ma fas yéene tey defar buy jox gaay buy ñu macati buy ba buy bi gën a buy noonu daal nga ne nga jox nga mucc nga def lan buy bi. ma jox gars buy ñu màcc buy buy bi di gën a buy loolu laa la bëggee. mu gën a buy donc jalonné dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne mooy sa métier donc euh, d'habitude dañ lay gis euh, ci internet bi ngay def li nga xam ne euh, mooy njombaan Dakar njambaan Màdd ak njambaan buy lan lan ngay def exactement. waaw man nag buy laay defar mooy mooy liggéey bi nga xam ne moom laa gën a assuré mm-hmm. buy bi moom mooy mooy favori. mais dama ciy teg màdd teg ci buy parce que samay clientèle dañ koy soxla waaw noon daal laay def. lan la motivé ba nga def defar li nga xam ne mooy njambaan buy. waaw njambaan buy moom man dama dama neex jàngatuma xam ma bañ a xëy di toog. te ma xam ne soutien de famille la moo tax ma jël buy xam nga ak màdd beeg daqaar bi di ko liggéey nag liggéey bu sérieux def ko métier noonu la demee waaw. Ah. fayda non bien sûr parce que looy def boo ci amul fulaak fayda doo ci avancé noonu la demee. alors ñu gis ne carrément concurrent yi bari nañ parce que léegi foo foo tourner rek yaa ngi gis ñi nga xam ne ñoo ngi jaay ay màdd jaay ay daqaar jaay lu nekk mais yow lan mooy sa particularité lan mooy li nga xam ne moom mooy tax nit ñi gën la waaw liggéey bu jaar yoon rek. liggéey bu set liggéey bu civilisé te ko ci yoon nag nangoo feree ci business bi may business ba ku ñam bësu jàmbur ñam sama bës dina xam ne kii kat loxo zalone la waaw foofu daal laa teg sama bopp waaw. ba ci boole neex bi nga xam ne man daf ma yéem ndax non seulement booy jaay euh, joie de vivre bi nga xam ne moom ngay àndal di nga reetaanloo nit ñi mais aussi di nga kaf ak nit ñi ba nit ki bu amuloon envie jënd sax dina jënd euh, donc lan mooy sa secret. waaw man sama secret leen la sama secret liggéey rek la mais bu dul dara nag yàlla dafa def ni man farceur laa dama mën a tooñ avant liggéey liggéey bi bu ma la rombee sax bu ma la xamul dinaa jéem a lever sa barrière xam te loolu dafa jafe nit lever barrière nit boo xam ni xamoo ko lool yombul surtout jaay bi ñuy def ku ne ngay dajal mais xam nga ruubente tooñ kafre ba xam nga dindi li ne ci yow ba pare doog laa jaay noonu rek waaw noonu la demee. Euh, yaa ngi ci combien d'années euh, ren depuis boobu ba léegi yaa ngi koy dox. jaay mbuy bi moom ak léegi mun naa ni un an un an et demi waaw. un an et demi bien. mais bien sûr parce que li may liggéey xam naa fi ma koy teg te xam naa tamit ni ma koy defee ak fi ma ko jëmee te incha allahu rabi bu neexee yàlla incha allah dina doon entreprise incha allah. alors ñu gis ne Sénégal dañu tàmm di def li nga xam ne mooy préjugé c'est-à-dire bu ñu gisee nit y a pas de sot métier mais bu ñu gisee nit dañ koy daal di xeebal li nga xam ne mooy métier est-ce que yow des fois doo dundu genre genre chose yu mel noonu nga gis sa moroomu xale yu góor yi di la naan euh, li ngay jaay pourquoi ngay jaay li patati patata waaw man loolu loolu mënumaa yóbbu fenn parce que nit booy def dara day fekk nga sentir ko boo bëggee benn affaire boo koy def da nga ciy dem ak ak cœur ouvert quoi man li may def dama koy sentir avant ma ko jaay nit ñi man damay xam ne lii may def nii dafa neex te maanaam waaw liggéey liggéey la parce que moo gën tamit xëy di sàcc baa ngay xëy tamit xam nga di def na ko su noonu te ñun ay soutien de famille lañ xam nga suñuy parents yaakaar ñu loolu mënumaa yóbbu fenn ah. nit ku nekk nag am nga sa pensée ak sa état d'esprit mais man self mind laay dund quoi mooy loolu sama genre yi nga xam ne dañuy jaay friperie ak ñoom ñi nga xam ne dañuy jaay màdd il faut ñu am fulla am caractère bu bare bare bare am euh, euh, gëm li nga xam ne moom la ñuy def pour nit ñi mën ñu respecter parce que sénégalais moo gaaw a li nga xam ne euh, mooy nit. donc mi ngi noonu des fois nga gis si si mbedd bi ay jeune hommes yu toll ni yow xëyuñu gontuñu liggéeyuñu béyuñu yettuñu soit ñoo ngi toog ci buntu kër di ataaya. amuñu benn métier ak ñeneen yi nga xam ne ñoom euh, ñaqu jàmbur la ñuy dundee c'est-à-dire dañuy sàcc wala ñu agressé wala ñu def naka su dul noonu pour survivre yow euh, en tant que jeune bi nga xam ne xale nga en ah, ku la gis xam nga ne tu as beaucoup d'avenir devant toi euh, ban conseil nga leen di jox. waaw di wax sama mbokku jeunesse bi ñoom ñu bañ a jël lépp rek ses ko état parce que nit nit da ngay gëm sa bopp avant tout mënoo xëy tëdd fi nga tëdd bëgg fayee ko mënta ne dangay xëy ñàkkante ji ko après nag loola waaye di dimbalee mu fekk la si damay dégg état état état état état état état état mënul def lépp yow da ngay jug nekk ci li nga war a nekk état fekk si la si mu gën a neex man daal loolu laa gis quoi mooy loolu waaw. en tout cas comme ni mu ko waxee état mënul lépp yéen si seen bopp yéenay doon seen état bopp donc góorgóorlu seen bopp daal di amal seen bopp jom ba état ñëw fekk si leen donc mu ngi noonu ñu daal di ñëwaat ci jaay bi un peu donc Jalonné euh, gis nañ ne tout à daje nañu. donc fan nga jógee at lan nga doon def ndax gis naa la nga yore mbuus ba pare man jàppale naa la ci mbuus bi diis na lool nag. loolu na waaw dama yeewu sangu def petit ndékki laal ñebbe bu toj. waaw toftal ci mayonnaise ci biir xar mburu mi laal ci ketchup laal ci kaani ngéwal yëngu ma ndekki ko ba suur waaw jaar nii rek dem si boutique bi dem dugg li nga xam ne moom mooy sama liggéey waaw pour fas yéenee ñëw rek. présenter ko téléspectateurs yi ñuy seetaan. loolu ça nous fera énormément de plaisir parce que ñun bëgg nañ gis jalonné fi muy commencé ak fu muy jeexalee parce que euh, ci ci événement yi li ci mel nii moo xam les casting wala événement yi nga xam ne nit ñi dañ fay daje parce que je me rappelle euh, euh, ñun événement cinéma moo tax ñu daje ak ñu xamante donc damay gis ne tout le temps da ngay ñëw yore say pot di jaay donc yow li ngay jaay da nga koy calculer ne nombre temps de pot laay defar wala da ñëw rek defar par hasard. man nag wax dëgg fa yàlla dafa am nu may liggéeyee du ma tëb tëb tëb rek di defar loo xam ne xamoo kenn xamul fu mu jëm maanaam journée tay bi nii damay pare pour defar cinquante pour waaw noonu la demee bu dee buy bi damay defar cinquante parfois bu ma amul programme bu ma amee programme nag mën naa defar ba ay soixante soixante dix mais bu ma amul programme comme nii commande jàmbur wala dara damay defar cinquante muy buy cinquante madd cinquante Dakar mais état bi comme que bi commencé na Dakar bi tamit naa ko commencé. waaw incha laal ci paañ xam nga këpp ci crevette ngéwal yëngu. barki Cheikh Modou Absa. lu neex <laughs> njamaan dakkaan njamaan buy màdd te damaa gis tamit ngay def màdd yu doy waar màdd yu am pastiflore mooy fruit de la passion. léegi loolu loolu doy na waar. waaw loolu na waar parce que man muy defar yooyu damaa neex. waaw man damaa neex kon lu ma defar day neex ndax dañuy séntu asamaan jatra bu buuxante waaye foo toll di ko séen tey la tey tay ngeen di dégg <laughs> <laughs> tay ngeen di dégg dëgg comme nu mu ko waxee nga ne séntu est asamaan. jarta buuxante ndax foo toll di nga ko séen te gaaroo gaar geroo ger ragal du dem geer boo bëggee dem ger te mënoo xeex boo yeboo toog. ay arme laa yor. ay ngéwal yëngu na. kii seexul xaddim laa lay waatal. Eh. jaayuma lu tilim. Mhm. jaayuma lu am unku. Eh. jaayuma lu am mbóot. yeneen jaaykat yi. Ah. ku nekk sa wërsëg ngay jaay. ndax eh, nit dangay ngay am état d'esprit bu cool. Mhm. concurrence mënta ñàkk. parce que lool mooy doxal marché bi loolooy tax tey nga mën a nga gën a mën a def tey loo xam ni xam nga day assurer say clientèle mais maanaam du ma leen du ma blâmer kenn ku nekk sa wërsëg ngay jaay parce que dama bàyyi yaay ak papa kër ga ñoom tamit amaana ñu def loolu bàyyi yaay ak papa kër ga kon li ut la ñuy ut waaw ku nekk tamit xam nga toola daal ku ne mën ngaa bay yóbbu sa kër noonu la daal. xalaatee euh, comme yow ni nga xalaatee euh, ku nekk sa liggéey dina dox parce que da ngay daal di faral di gis concurrence yi nga xam ne dafay daal di métti lool soit bu ñu nekkul ci internet bi di waxante lu ñaaw euh, ñoo ngi defante yeneen yu ñaaw donc ba tax na si hygiène boobu ngay dal di ñëw amal na ma solo Euh, dafa daal di am importance surtout li nga xam ne euh, wàllum lekk la parce que gis naa ci internet bi je pense que c'est sur Instagram ñuy daal di euh, wax ne carrément ko amul carnet de santé dootoo jaayati li nga xam ne mooy lekk mbedd donc parce que ñu bari dañuy am intoxication alimentaire am na ñu bari ñi nga xam ne également du ñu xam naka la ñuy defaree rek li nga xam ne mooy lekk yooyu ñuy jaay yow sa wàllum liggéey gis naa ne seen naa fële ay gants seen naa ma xam ne carrément hygiène la. donc est-ce que tu peux nous parler un peu si sa hygiène bi nga xam ne moom ngay euh, euh, liggéey. waaw du leen du set rek parce que lépp loo gis tamit set moo ko moo ko lal quoi mooy base bi parce que tey ay nit ngay jaay te biir dafa sensible waroo mën a jaay nit tey xam nga mu mu lekk ko tey am problème mu jaare wala dara baa moom ay intoxication loolu tamit dama koy daw dama koy sóoraale parce que loolu day yàq say clients bon maa ngi sant yàlla nag. ba loolu arrivé gu ma te yàlla bu ma arrivé waaw di wax samay mbokku jaaykat tamit ñu def ñu attentionné parce que tamit lekk la di sóoraale di takk masque di sol ay gants parce que loxo dafa am ay microbe loo ko raxas raxas raxas microbe bi mën naa des waaw ñuy sóoraale loolu daal. c'est important c'est très très important dafa daal di am importance am na ñi nga xam ne seen biir dafa sensible. lu ci bokkul rek bu ci duggee dañuy daal di am problème mu jaaree wala ñu am intoxication alimentaire moo tax ñu bari du ñu daal di lekk li nga xam ne mooy lekk mbedd ñu ñëw un ci dernière question bi avant ñuy dem ci liggéey bi euh, ñu faral di gis ne bu njëkk ba temps xale euh, njambaan buy dafa yomboon lool mën ngaa jënd sa buy bu juróom jënd sa meew bu juróom def sa suukar njambaan sa butéel mu neex bala nga def sa daqaar ah def ci keccaxat yooyu saf yooyu loolu <laughs> màdd nga jënd sa màdd lii mais léegi eh, da ngeen ko euh, defar ba mu gën a taaru daal mais pot yi euh, avant dama doom gis ñu doom def pot màdd 500 léegi mille francs ba léegi actuellement mu ngi 1500 2000 jëm kaw léegi yow say pot c'est à partir de combien. waaw man samay pot à partir de mille francs la jëm kaw 1000 francs ba mille nag mooy laas parce que. da nga ni temps xale te jamono day dox waaw lépp a yokk kilo buy léegi c'est à 1000 francs tey madd dafa seer ay saaku 25000 mille moom laay wàccee fii xam nga daqaar bi tamit la même chose kilo 1200 bokkul ak jamono bi daqaar dangay am mbuusu juróom amatul waaw parce que nag jamono mooy dox léegi nag bi jamono dox nag ñun tamit xam nga ay jeunes lañ te bëgg nañ dara ëllëg te li ñuy def am na fu ñu ko teg te am nañ fu ñu ko bëgg a yóbbu waaw am nañ ci fulla am nañ ci fayda. waaw lépp changé lépp yokku moo tax xam nga ñun tamit buñ jëndee suñuy marchandises dañuy xool ñaata lañ frais parce que kuy liggéey gañe nga ci séntu mënoo di liggéey di perte bu yàggee nga daanu amul sens boo damay liggéey xam nga finaliser mën naa jël benn cent mille def ko ci marchandise waaw bu ma paree nag yàlla dañu suturaal ba ñu génn si mais ay subvention tamit soxla nañ ko si état parce que man li may liggéey génnuma dëkk bi. dew ma si gaal parce que yooyu yàkkamti la waaw foo demagul rek dafa jotagul te loo amagul rek ñëwagul loolooy àdduna yàkkamtiwu ma en même temps di double role parce que damay def consommation locale li may jënd nii ci développement dëkk bi la en même temps ki may caméra TikTok ak Instagram dama koy fay journée 5000 waaw sama caméraman may àndal parce que mënoo di ànd ak nit sa moroom la xam nga nga koy xëyloo ba pare muy wàcceek loxoy neen waaw am nañ laaj nañ jàppale daal ñun kuñ jàppale ñu jël waaw. yaa ngi fay nit ndànk-ndànk donc xalaat nga ba am entreprise bu gën a bi di embaucher ay personnes yi nga xam ne dañ lay liggéeyal. Mm-hmm. waaw buy Zalone bi moom incha allahu rabi ci kaw ci kanam rek. waaw day doon entreprise. waaw parce que tamit njambaan bi xam nga faaw ñu internationaliser ko noonu la demee tubaab bi sax dañuy màcc <laughs> Ah, donc mi ngi noonu jalonee ngi nii dégg ngeen ni mu waxee donc c'est rassurant euh, ngeen daal di dégg ne xale bu am jom la mais xale bu bëgg li muy def état tamit euh, il faut kon am nañ président bu bees monsieur Bassirou eh, Diomaye te li ci gën a neex mooy président bi njaga ñaaw la dëkk fan yu ba fan yu bayee parti bi xam nga loolu daan nar a xeere kon nag monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar fay boo seetaanee émission bi ñun jeunesse bi nga xam ni ñu ngi contribuer ci développement dëkk bi gersuñu ministre de l'agriculture man maa ministre man maay ministre de la jeunesse parce que maay jàmbal xale di jox xale ñuy màcc xale yëpp amoon saan mais faj naa lépp yàlla na jàmm yàgg <laughs> moom rek lay topp <laughs> donc mi ngi noonu alors donc li nga xam ne mooy buy biir Dakar bi cher na xam naa ne nag euh, ñaxtu bi bari na lépp dinañ ko daal di wàññi vu qu'on a un nouveau président monsieur Bassirou Diomaye fay donc ñi nga xam ne moom la chargé euh, ci wàllum googu dinañ daal def seen liggéey parce que jamono gi ministre yëppay liggéey de toog muy dox maa ngi jaay buy nag may lancer jeunesse bi ngir yàlla bu ma kenn kar maa ngi jaay buy di jaay màdd di jaay Dakar <laughs> bu ma kenn topp jaay leen kew wala haricot wala netatu te ngeen bàyyi sama mission bi. <laughs> mission moom moo ngi noonu donc dañuy daal di àndal ki nga xam ne mooy Pape Mendy tey moom laa àndal bu ko defee ñu daal di dem ci liggéey bi nee naa leen waxtaan bi bu neexee am na leneen lu ko dàkk li ko dàkk nag mooy daal di jamb buy ndax tey moom jamb buy la ñu woote du dëgg. nañ dafa tàng. Mhm. te tey dama xam ni tàng na te sentir naa degré tàngoor bi. Mhm. waaw man naa daw màdd bi parce que xam nga. day pimenté quoi. waaw day lu sucré nga. day laay laal damay laal buy bi jàmb ko mu neex ma laal ci goloor yaa mu tëb xam nga. Mhm. ma def ci meew pëndëx bi xam nga jaxase foofu yëpp jox xale ñu màccati ba teen ngéwal yëngu. <laughs> te loolu yëpp da ciy lu nar a neex. expliquer un li nga xam ne jot nañ ko def parce que gis naa ne tànn nañ gis naa ne dugal nañ ko ci euh, bool kii bi pot waaw comme ni ngeen ko gisee rek waaw parce que buy bi daa am ay tànn moo tax ma ko doon segg quoi doon dindit xam nga salte yeeg lu si nekk lu bari pour mën koo dugal quoi pour mën koo njamban waaw. alors loolu def sànq. d'accord boo ko njambaanee ba pare dama mel ni danga ne il faut ñu xaar quelques minutes. waaw instant bi mën nañu commencer njambaan bi mooy loolu waaw def mélange. waaw. donc donc Pape Mendy dañuy daal di def li nga xam ne mooy mélange bi nee naa leen hygiène. li ma gën a amal importance mooy euh, buy bi dañuy bañ koy utiliser dañoo sol suñuy gants donc mi ngi nii ñu koy mélanger euh, dégg naa tout à l'heure également nga ne euh, da ngay bañ ndox bi ëpp. waaw parce que bu ndox bi ëppee njambaan bi. day ndoxe day ñu ngi koy jaay duñ sentir màcc bi quoi. te comme que màccante lañ woote rek na ñëpp màcc faaw mu dang <laughs> maa wax léegi bëggoon naa xam aussi naka ngay xamee euh, quantité buy bi ak quantité ndox bi ba mesurer ko euh, buy bi ñaata kilo ngay jënd. waaw tey 4 kilos laa jënd. waaw mais damay équilibrer ndox mi parce que boo xoolee euh, soo bi dama ko duyoon ba mu fees mais defuma lépp. parce que ma defee lépp li ma bëgg du ma ko am ndax suukar bi war naa ñëw meew bi xam nga waaw ak ak yeneen accessoire waaw alors on poursuit xam nga na ñëpp góorlu góor jàpp ci góor xam nga góor àgg fa yàlla waaw nañ bañ a toog di xaar lenn baa ñuy dépendre si kenn soyez indépendante gëm sa bopp xam nga focus am foo teg sa bët bu ëllëgee nga mën koo jàpp sama gars yi noonu mi ngi noonu man kii laay wër donc euh, ma daal di euh, daal di tàggatoo téléspectateurs yi bu ko defee comme ni mu ko waxee ñu daal di ko gunge mu wane ni muy jaayee rek euh, li nga xam ne mooy ay njambaan buyam donc mi ngi noonu voilà j'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui comme ni ñu koy defee saa ne ne góorgóorlu moom sénégalais yi ko bëgg góor góorgóorlu dafay daal di insister à la jeunesse ñu daal di am jom parce que boo leen xoolee tey ki ñu indi muy Jalone xale la ah macha allah tubarfakalla ni mu ni mu mel bu ko neexoon daal di jël. beneen chemin soit mu nekk agressé waa muy 15. bu ma neexoon may 15 baa may ma xëppoon baa baa baa nit ñi tëdd may tëb miir mais mais waaw mais yëpp def ma ko damaa rase woon. damaa xam nga réglé wu ma. damay jaay di bërëngu di tëb xam nga ma wat ko parce que parce que damay bañ lonk moo tax ma watu fi mu ne <laughs> génn naa sax clientèle yi xàmmeewuñu ma naan kii dana la ma leen xool leen teint bi rek. <laughs> terrain bi c'est unique noir <laughs> donc merci beaucoup a Pape Mendy bi nga xam ne tey moom laa àndaloon mais aussi di euh, remercier euh, sama chauffeur di sama doom ah nen tuuti euh, ay waay Ousmane Ousmane Ousmane waaye sama doom ji kenn du yow Kanté tey Ousmane laa àndal kenn du moom ah, donc euh, voilà di remercier également Gora Gora moom bu nekkee euh, dafa daal di rafet rek image yi bu ñu baaxee moom moo daal di jàpp ci montage bi nee naa leen 7TV équipe la équipe bu jeune équipe bu dynamique mais équipe bu jàmbaar di liggéey boo leen déggee góorgóorlu 7TV la fekk baax ñëppay daal di góorgóorlu. kon ci ca 7TV la. doxal <laughs> doxal ah, donc di leen wax ne carrément ah, vous pouvez me contacter pour ah, mes friperies donc yi may xam ne man maa koy jaay sur le 70 sur le 78 480 25 25 on se donne rendez-vous incha allah bu mercredi prochain si beneen numéro sur ce ñu daal di dem jaay. acca kon topp leen ma ñu topp ko. <laughs> ñëw jaay la buy nga gàntal ma te lu ma nga màcc maa la jox nga màcc kon na màcc gi neex topp leen ma yow. parce que mi muus. salaamaaleykum. neex. nii la def ak moom moom yaa ngi maa ko jox bu ma turee nga fay yow bul jaaxle. kii nag mooy sunu may ga koñ bi waaw di boroset lu neex di pombiteer lu neex loo jaayul baaxul am yàlla sa jàmm yàgg xaaral ma bàyyi la fi benn koo nga fàtt lu neex bu ma tourné nga fay <laughs> nga ko waaw booy moom nag ci may nga koñ bi nga yow loo defa gën loo deful may hmm. nga bi fii la lépp di xewee yeneen mayga yi seen i mayga day am doomu taal day am póon day am haricot ekoo ci kon bi di sàcc biisu sàcc cet cet cet loo téléphone loo defarul ci téléphone baaxul ngay sama waay. nekk si koñ bi da def la am solo. njool nga bu na neexoon di jàpp booy di leen dóor mais defoo ko. waaw dëgg la may sa waay nag nga yàgg maa jàppale. vraiment heure bu ma ñëwee nga jënd. Mhm. on est en direct sur la 7TV. télévision bi nga xam ne xale yëpp moom lañ bëgg. waaw directrice bi di may mën a nduur fay l'international. man Zalone bëgg naa nga màcc si sama buy bi. waaw comme que nag comme ni ñu koy defee rek. te ma dem ba ma dem tourné xaaral ma jox la sa kuddu nga fàtt njool jaa ko am maa ngi tourné kii mooy Cheikh Ahmed Cissé l'international bu ma jëndee buy fii la bu ma jëndee Dakar fii la bu ma jëndee Màdd fii la kon nag mënumaa def émission bi émission bi jeex te duma ko delloo njukkal di ko sargal yenn saa yi damay ñëw xam nga jënd ba pare jeexal am lu ma manqué mu jox ma ko yàlla na jàmmam yàgg Cheikh Ahmed Cissé am teel yaa ko am man <laughs> ni lay demee ak Salome lépp ci buy bi xam nga sama gars yi tamit di ma topp lu neex ah yàlla seen jàmm yàgg ñun dund leen ma découragé ah yàlla xam-xam. ok. dama leen koy jox ngeen bokk ko. leer na acca du dara dul dara may doog a débuté di dem almadi guddi di jaayi xaw ma ku ma àndal ci motoom laa doon yéeg xam nga di ko fay livraison aller rek la may jël du laal retour retour bi danaan ma maa la ko may gratuite muy Seydina Aliou sama waaju xam nga ma koy reversé di ko kota boo di waaw kii nag da di sama garab bu baax waaw nekk ci koñ bi dañu ñu jàppale di ñu conseiller ñun jeunesse bi nga xam ne dañuy liggéey dañuy ñëw si moom di ko dénk suñuy xaalis particulièrement à man parce que Serigne Bamba période koor xama xam nga dégg ko xaalis mu ñëw yëkkati 300000 xaw ma 400000 jox ma ko ne ma lii nga fi dencoon xam lool loolu yomb kon genre bu leen amee tamit war nañ leen fësal gars yi di leen xam nga di leen bàyyi xel bu leen boobu tax taw kii mooy l'international Tafa Bodi kon nag gars yi mu ngi fi moom it ci parcelle kàmb fu ma mën di dem faaw ma jaar fi ndax damaa ñëw ci koñ mi ñëw ci dëkk bi mu jàpp ma dalal ma di sama waay Izo Soble international di jaay artiste ay yére ñuy sañse bu dul woon ak moom kenn sol di sama waay nag ju baax barki Sëriñ Bamba yéene ma alalam bëgg ma ba ma yëg xam di ma defal ay xeetu teranga di ma sañseel di ma wax danoon ne defal nii jaaral fii waxel ni kon kii tey bu ma ko amee tamit faaw ma présenté ko waa 7TV noonu la demee tey maa ngi en direct sur l'émission góorgóorlu dara du góorgóorlu xam nga bañ a jaar ci gaal yi ndax gi Cambérène gi jege na ma heure ma bëggee dem heure ma bootee sàggan ma daloon dafoo dëtër na ma kon yàlla sa jàmm nga nga war a jàppati ci combat bi ndax nga koo def man kii moom ma njëkk a jël yóbbu ma almadi barki sëriñ Bamba boobu almadi du almadi ñaar dërëm lay der boobu jël ma di ma teg ci naajo di ma way naan ma solo ne képp képp képp képp yàlla xol googu sikkim bi situwul il y a non buy bi tàmm nañ ko góor góorgóorlu rek lañ xam si yow. waaw jàmbaar nga bañ la xamee ba léegi daal liggéey lañ xam si yow. waaw yow moom macha allah liggéey rek góorgóorlu rek góorgóorlu rek yàlla baax yàlla baax góorgóorlu waaw comme gars yi ni ngeen ko gisee woon émission góorgóorlu woon fii si 7TV noonu la demee gars léegi nag kar leen ko ñu joxe rendez-vous à la prochaine fois.